Oui, vraiment content parce que quand même sans règle, nous, sommes suñu collègues, bi ndeyawa ne ñu am na ñu ñëw fii di ñu bëgg vraiment nous ne des ñun qui bu ñu sax recevoir cadre parce que d'habitude vraiment les écoles surtout classes les cadres yu refaits, le machallah. mais da ngeen ñu fekk nous, ñu nekk fin d'année commencer à di dindi bagages yi di mais sinon c'est de belles classes Nous nañ accueillir fu

parce que tout à l'heure monsieur Diamou ma donné wax yeneen œuvre sociale yo xamné def nako fi fii ak club bi ñi mu andal ni. donc euh, vraiment monsieur Ali ñu ngi lay encourager di la sant di la gërëm par ma voix waxtu yëpp ñu ngi lay par parents de yi élèves donc mën na né dëkk bi yépp parce que dëkk bi fi nekk ni ñu ngi lay sante di la gërëm te xamné faté fàtte parce que ñun école yi surtout maternelle yi élémentaire ñom dañu soxla du concret concret moy matériel xam nga xalé bu ndaw mëno liggéey ak mom dans l'abstrait il faut ngay am du concret té li mu ñu indil ni si la bok donc ñu ngi ñaan vraiment partenariat bi gëna yaatu yalla gëna jappalé ali ak ñi nekk ci ginnawam ba li gëna machallah yalla gën ko ful donc ma ngi ñaanal tamit ñi mu andal ñi ñëpp kantan yalla kantanal leen defal leen xéewal ba ñom tamit ñu yàgg dika ak di def. ñu ngi leen di nuyu. di len dalal li directrice bi wax nak xamna duñ ci duñ ci def ben répétition ndax xam ngeen ne école bi comme nim ko waxé non lay démé kon bi ngeen ñu indé li mu jaar ci partenariat ñëw fi ki tax lolu am ñun amel nañ ko njukkal dëkk bi amel na ko njukkal parce que dëkk bi mooy jël seeni doom dugal ko ci école bi pour bu ñu jàngee nag nekk aveniru réew kon kii construire xale ki koy defar di ko tabax bu mu mag amul kenn amul payam waaye kii itam nga xam ne dafa tukki di xalaat dëkkam bi xalaat ne war naa ko yóbbu ci ñooñu nga xamee ne dañ leen di defar parce que nit dañ koy defar te lii mooy baasu doomu aadama xale bi nekkee xale bu tuuti nga di ko defar muy mag pour ëllëg mu nekk nit kon li ngeen ñu indil nii dañu ne nag yal na leen yàlla fay yal na leen yàlla jàppale partenariat yi ngeen am aussi yal na leen gën dooleel ba ñu mën a def leneen parce que wax nañ ma ko am na leneen yeneen li ngeen di def te nag dëkk bi noonu la diw man ci dëkk bi laa juddoo ci dëkk bi laa tekkee moo gën tekkee ci dëkk bi moo am solo juddoo bi lépp lépp fi juddoo ci dëkk bi mais ki fi juddoo fa tekki fi dara moom la ñu soxla kon Ali lii nga def nii ak ñi nga ko àndal ak ñi nga xam ne ñooy say collaborateur yëpp ci waa dëkk bi parce que xam ne ñaa ñu bari nag xam ne naa lu bëri fii ci yéen kon bu fekkee ne miinuma la itam dégg naa sa tur te gis naa ne li nga def nii nii la loolu itam bu jaaree ci ñi nga xam ne ñoo yore parce que orto bi dafa nekk su responsabilité d'une institution municipale muy mairie bi mairie bi itam bàyyiwul suñu loxo ci ñun kon bu ngay jaaree ci ñoom ba lii yëpp ngeen di ko def baro am na lu ma expliqué yëpp ngeen di ko def dama ne amul lu ko gën te nag population bi bu ñu wax population politique ak leneen mu ci munti dem nit mënul def ci lo loo xamee ne defuloo ko ak population bi sinon boog du am njëriñ sinon du am njëriñ kon li ngeen def ni rey na ci ñun màgg na lu màgg ci ñi ngeen xam ne ñooy euh, ñi nga xam ne ñooy encadré xale yi ngeen gis leen suñu xale yu jigéen yu naay yi nga xam ne ñu dañoo defar di jàng mais itam nekk koo xamee ne kii ak ki mu bokkal liggéey bi

tey jii nii ñu ñi di wax ni nek ay mag ay xalé lañu woon jaar nañu fi donc euh, di sante yalla bu baax bu tey jii nii suñu borom bu ñu mayee gudd fan ak wér gu ñu mënu tok toog tey jii di delu fi suñu suñu suñu enfance mais avant may commencer dama leen remercier yéen ñi yéen professeur yi yéen ñi yéen ñëpp ñi nga xamni ne yéen a yor yi parce que ay base bi ay dugal éducation sen sen bop parce que tey ni xalé xale euh, mun na jàll yoon boo xam ni du baax ci moom yéen a koy jubal bu ñu demee ba tekki grâce à yéen la donc maa leen remercier bu baax di la encourager di leen yokk courage bu bëri ngeen xam ni lépp loo leen def déjà seen bopp ngeen ko defal seen dëkk ngeen ko defal say seen doom seen sët seen euh, xarit yéen ñëpp ngeen ko defal ko donc métti na métti na parce que ñu ñëpp am nañu ñii am nañu ay rakk ñii am nañu ay doom nekkal xale. Euh, neex na neexul surtout boo yoree lu mat ay fukki wala ay téeméeri xale nga nekk yow kenn xam nga loolu ku am bopp dëggantaan am euh, xolu muñ mooy mën a ànd ak ñoom donc euh, yéen daal si man daal yéen laay gën a remercier yéen daal laa lay gën a remercier di leen yokk courage xale yi moom dañ leen wax wax ni ñuy déglu seen seen parents yi déglu seen maîtresse yi ak seen maîtres yi déglu ñu leen àndal ànd ak ñoom.

parce que fi ñu toll nii dafa leen doon loo xam ne daleen leen gën a yokk courage di leen gën bégloo te ñaan naa yàlla ëllëg ci biir ñoom ñu ñëpp suñu borom may leen gudd fan ak wér gu ñu màgg ba def lii nga xam ne ñu ñoo ko def ñoom ñu def ko suuba quoi waa kay jërëjëf merci yéen